jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 tey si euh, samedi bi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum 2020 euh, seen émission pencum réew mi dellu si waat ci samedi ji ndax xam ngeen ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñu ànd si ak yéen maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu seen mbokk Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi. Euh, Mamadou Diawa jàll moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag tey ñu daal di am benn euh, invité bu spécial di René Pierre euh, Yahoume mu nekk responsable politique APR Dakar Plateau ba pare tamit am na kuréel yoo xamante ne jiite na ko ci biir APR dinañu si ànd ak moom li tax nag invitation bi li ci ëpp li ñuy waxtaane mooy gouvernement bu yees bi bi ñu ko tegee bi ko président Macky Sall tegee gouvernement bu yees bi ñu gis ne am na ay opposant ñu nekkoon ci kujje gi ñoo xamante ni tey dugg nañ ci biir gouvernement bi ku ci mel ni Idrissa Seck moo ci gën a fës ak euh, Omar Sarr ak yeneen ministre ci biir loolu na gouvernement bu yees bi dafa bëri frustration boo xamante ni dafa am ci biir APR am na si nag ñoo xamante ni peut-être duñ ko wax ci kaw waaye ci biir ndaw ñi tamit bëri na si ñoo xamante ni tey am nañ lu leen ci naqar yi Euh, René Pierre Yahoume mii nga xamante ni tey moom la ñu invité mu toog fii ci studio bi tey danañu waxtaan ak moom ci loolu ndax ñoom dañoo taxawal tamit benn collectif euh, militant authentique yu APR su ngeen gisee may def rappel bi pour yéen ngeen bàyyi xel émission bi ak lan la ñuy euh, waxtaanee René Rewmi FM a ngi lay nuyu. waaw sëñ Abdou Khader maa lay nuyu di la di la jaajëfal si sa tur bu mag bu tell bi bu sell bi di nuyu bëpp auditeur auditrice Rewmi FM di nuyu surtout les sénégalais de la diaspora parce que su ma nee diaspora foofu laa nekk nekk naa Angleterre ne coordonnateur de l'APR en Angleterre di beral loxo waa Dakar Plateau di nuyu tamit le collectif des authentiques de la l'APR te su ma nee collectif bi yaakaar naa dugal naa si APR yëpp mooy 97 pour de bi. Euh, jërëjëf euh, René Pierre euh, yow mi sànq yaa ngi tudd Angleterre bala ñuy ñëw ci seen collectif bii nga xamante ni tey li tax ngeen taxawal collectif autant les militants authentiques de l'APR bokk na ci mer wala rébellion boo xamante ni tey wala lu leen naqari ci doxalinu président Macky Sall dana ci ñëw mais tey pour auditeurs yi nga xamante ni ñoo lay déglu lan mooy firndeel ne yow militant authentique nga bu APR. xam tey sooy wax affaire authentique dafa am lu ñuy woy authenticité tey ñun ñëw ni sax di fëkk dënn di ñu ñun ñoo fi nekkoon pour écarter ñeneen no parce que politique il faut rendre à César ce qui appartient à César boo ma nekkee Angleterre di bay sama waar balaa loolu dama daan ab ndaw dugg si politique ma nekkoon parti démocrate sénégalais xale bu ndaw 1995 96 nekk responsable à Dakar Plateau ma dem Angleterre en 98 ma sanc fa PDS nekk secrétaire général des étudiants du amee. ba loi Ezzan amee si laa bàyyi PDS si laa bàyyi PDS bokkutuma benn parti politique ma nekk si ay kuréel yu ñu woyee Nation Islam mooy mouvement Malcolm X boobu ma nekkoon porte parole à Londres à Stoke Newington Mosque ma dugg si ay mouvement yu bare nekk si ay mouvement yu luy jàppale doomu nit ñuul pour mu am taxawaay foofu bokkoon naa fa wante tey engagement dafa doon dafa doon loo xam ne di inné en la personne c'est une passion parce que dama jógee kër boo xam ne Dakar Plateau mooy sama maam mooy Abdoulaye Kabri nekkoon porteur pancarte nekkoon vice président assemblée national mu doon bañkat ba mu ñëwee si parti ba mu ñëwee assemblée nationale gisul loo xam ne ba loo xam ne du yoon daf ko bàyyi foofu bàyyi lépp sénégalais yi may wax xam nañ koy Abdoulaye Gueye Cabri man su ma nekkee ab ndaw damay dégg ay jeunes di wax ay mag di wax ñun ay ndaw yoo xam ne ñu bëgg a chantage le président de la république man tey damay rappeler l'histoire c'est important parce que yaa ma woo invité ma damay wax pour Sénégal yi xam tey président Macky Sall dafa ànd ak ñu woowee président Idriss Seck xam naa ko bu baax a baax ñun amuñu un problème à chaque un président mu tànn ak ñu muy liggéeyal mais tey doo bàyyi si ay malaat na jël jël yeneen malaat jëm leen renforcer tey ani ndaw yooyu di wax ñun ay ay maître chanteur nii ani responsable di wax ñun ay maître chanteur nii ba Idrissa Seck nekkee prison jabaram day pend moo woolu ma mu woo secrétaire am joor mu woote suñu kër jamono yooyu c'était en 2004 wala 2005 mu ne utal ma numéro René Pierre ma toog bés ndey pen woo ma depuis Paris maa ngi Angleterre mu ne ma Pierre na nga def dégg naa nga bàyyi PDS ma ne ko ndey penn bàyyi naa PDS mu ne dama bëgg na defal ma benn affaire pour ne defal ma déclaration pour demander la libération d'Idrissa Seck ma ne soxna si amul sens Idrissa mu ngi prison mu ne yow sa kàddu dafa am importance si Sénégal parce que xam naa la xam naa sa engagement mais ñooñu tey est-ce ndey penn woo na leen tey te Idrissa Seck tey moom ñu jël jox lépp mu nekk suñu kaw man boo jamono boobu mu koy def engagement laa ko def. d' accord d' accord d' mais euh, René euh, yéen euh, yéen ndaw yi APR wala yéen si yéen euh, li ñu teg gouvernement bi ñu teg jël Idrissa Seck jox ko conseil économique social environnemental jël Omar Sarr def ko ministre jël Yankoba Diatara def ko ministre jël Ali Saleh Diop def ko ministre jël yeneen poste de responsabilité. fal ñeneen ñoo xamante ni tey ay opposants lañ woon ñu doon xas président Macky Sall ak ñu ko doon saaga ñooñu la président Macky Sall tey jël boole leen ci gouvernement bi génne tamit ñoo xamante ni tey jàpp nañ ne ay kàngam lañ woon ci biir APR génne leen ci gouvernement loolu lépp nag sañ sañ président Macky Sall la yéen gouvernement bu bees bii mu teg René Pierre auditeurs yi ñoo ngi lay déglu yow ak ñi nga àndal di ay ndawi APR lan moo leen ci naqari. xam ñun tey un président de la République dafa am aux emplois civils et militaires tey am na moom loo xam ne mu ngi koy diisoo ak ñeneen mais ñun li ñu constaté mooy que dafa am ay fractures au sein de l' alliance pour la république tey fracture boo xam ne premier point mooy yoonu yokkute boobu tey dafa doon woonu yoonu wàññute su ma nee wàññute mooy ñu mu àndalan démb mooy ba ñuy créé les fonds baptismaux de la paix yaakaar naa président ba ñu ànd ak moom du woon xaalis du woon dara engagement la ab vision mu am pour Sénégal équité territoriale ak vision inclusion sociale moo tax Sénégal yi ànd ak moom beneen deuxième point mooy tey jeunesse bi amoon àndaloon président Macky Sall te jeunesse boobu dafa jeunesse boobu a été trahi moo tax jeunesse boobu day obligé tey mu jël le prendre le chemin de l' exil war a du suicide moo ñuy jël ay gaal yi tey parce que en 2012 yooyu ñoo xeex ñu fi nekkoon démb te ñuy xoolaat encore ñuy xeex démb ñu war ci pouvoir bi moo tax jeunesse yu bare mer gàddaay nit ñi di ñuy dem bitim réew ñuy jël ay gaal amatuñu yaakaar ci réew bi parce que mu amaat beneen leneen loo xam ne mooy identité de l'APR. Ah, lu tax amatuñu yaakaar ci parce que lu tax amuñu yaakaar tey munoo jël ñoo xam ne jeunes yooyu ñoo ànd ak tey mun naa ne ñu fal président Macky Sall la su dee cinquante huit pour cent. ay jeunes lañ su dee cinquante cinquante huit pour cent la. mun naa ne huit pour cent APR la. mais ñeneen ñi c'est des sénégalais yoo xam ne ay jeunes ay ndaw ay mag ñoo ànd ak Macky Sall ab vision am mais tey ndaw yooyu xeex. Abdoulaye Wade jamono boobu suñu xoolee ñu doxee Abdoulaye Wade parce que lan moo taxan parce que ñu doon defee réew bi moo du noonu ku mu am ndey ku mu amul ndey ndaw yooyu toog léegi jamono yi gis ñooñu ñoo xam ne ñoo nekk si nguur bi ñëwaat ànd ak président de la république di def leen neex mais ndaw yooyu tey ñu yaakaar amuñu espoir tey ñu jël gàddaay ñoo xam ne ñu jël exil def loolu beneen bi dafa mooy identité de la paire dafa défiguré par a important parce que identité bi tey tey suñu ñëwee APR day am identité originelle mooy yoonu yokkute mais yoonu yokkute boobu espoir la woon mais léegi c'est un désespoir léegi mooy yoonu wàññute parce que tey ani ñu mel ne ay Moustapha Diakhaté ani ñu ani ñu mel ne Alioune Badara Cissé ani ñu mel ne ay Moustapha Cissé Lo ani ñu mel ne ay Mimi Touré ani ñu mel ni woon sax ay ñoo koo xam ne Abdou Abdourahmane Ndiaye njaay tey moom moo nekkoon si parti bi moom mooy xool bëpp commune yooyu di xool ñi foofu ñañu war a renforcer foofu noonu mais ñooñu kenn gisu leen. da gis ne Macky dafa trahir nitu démbam. man dama ne tey le problème que nous avons à l'APR c'est le président Macky Sall tey la jeunesse ay trahi tey même les ministres sont trahis dégg neen Macky dem yàggul bun Abdoulaye Dione oh, réunion bu amoon scène bi secrétaire exécutif du parti bi lu mu wax mu ne c'est très tôt d'acquitter la vie d'Idrissa mais président tontu aussi tey benn benn benn journal boo xam ne. benn journal reconnu boo xam ne lu muy wax dëgg la moo ko jëndee moo ko jëndee wax ko mais loolu day ne que tey président Macky Sall la ñu mu doon diisoo démb diisoo ak ñoom tey tey dafa bàyyi ay xaritu xaritu ñu ànd ak moom jël ay xaritu démbam. moo tax sànq lu ma doon wax lu important na dog ma dama ne ba ndey penda wooy ma ba mu nekkee Angleterre dafa ma boolee doomu Alim Badara Niang génn na àdduna yàlla yàlla yàlla yàlla xare àjjana ku tudd ndey mu ñëw ba Angleterre àndax man ndey penda ne ma defal déclaration ci laa def déclaration bu Walfadjri Sud FM pour demander loolu tax ma parce que ñun du chantage mooy tax a jug du xaalis mooy tax a jug Abdoulaye moo dàq may moo dàq may Macky Sall Abdoulaye moo ko gën a généreux fuuf tey ku bàyyi 2004 Abdoulaye Wade soxlul xaalis mais lu muy gën mooy reconnaissance tey Macky Sall su xamul suñu njëriñ Moussa Sy fii la toog barki démb mu ne Macky Sall dafa jàppee waa Ndakaaru ay jaam ne Macky Sall il a un gouvernement d'incompétent de nulard te Moussa Sy la ñu nommé PCA au port tey Ousa Diallo chanteur la xam ni nga ko jamono Abdou Diouf amoon na doole ñu xam ni Père Ousa Père Ouza dama ne meeting Khalifa Sall yàggul barki démb mu jékki-jékki wax mel ni xeme ni toog à nos grandes ni gis ko parler il a été reçu par le président tey ñun. président mais Idrissa Seck mi doon wax vision Macky jam ñaajo la yem nag. mais démb dégg na ko ku mel ni dé député Déthié député Déthié wax na ko Déthié Fall wax na ko mu ne way Macky Sall vision bi war na dépassé jam ñaajo mais loolu mooy lan Déthié député la Idrissa Seck la àndal mooy numéro 2 te Déthié fu demee ba loolu. man damay damay damay ne ah attention ànd bi muy dem dina xaw a doy waar dafa am benn général de la guerre de Corée Douglas MacArthur mu ne l'histoire de la guerre des causes perdues peut se résumer en deux mots trop tard pour aller ses amis ou bien trop tard pour connaître les desseins de son ennemi en puissance te dëjee su waxee loolu mooy man sama xel dañ koy jéem a naxasal est-ce que ëllëg année bi dina yegg lu tax lu tax dëjee wax loolu te muy doon député te moo doon numéro 2 Idriss Seck tey Idriss Seck moo ne bi mburu ak soow mais lu dëjee wax démb du ànd mburu ak soow ànd bi ànd boo xam ne la ànd bukki la ànd boo xam ne dafa am lu ñu woowee fox lu ñuy woowee wolf ma ànd renard ak ànd loup moo tax ñun jeunesse APR yi ñu ñoo taxawal un collectif collectif bi ñu si nekk damay wax seen tur am na ku mel ni caay jaabi jàmbaare si parti bi ku mel ni Ibrahima Pouy ku mel ni Ñambe ku mel ni Mata ku mel ni Matar Gueye ku mel ni Nourou Niang ku mel ku mel ni ku mel ni Tamimu Wane ku mel ni Baye Gana ay ndaw ni mais ñooñu ñëpp wax ma fan la ñuy militer. fan la nekk su ma Ibrahima Ibrahima Pouy muy Grand ñambe ñambe ñambe ñambe muy Rufisque bay baygana muy Kër Massar euh, caajaa bi muy Podor caajaa muy Podor tamit mu muy yoof ah. amul ñu nekk extérieur aussi. am nañu extérieur mais tey lu ma lu ma jaaxal dëgg-dëgg ba ñu defee lancement bi mais ñu bari ñooñu woo di ñu yow sax ba ngay ñëw tey am na ku am na ku la woo pour laaj sama numéro. ku nekk tubaa ba waa Touba ne ñoom ñu pare pour ànd ak ñun lan moo tax ndaw yi bu ànd ak ñun te mun naa ne tey. ñun tey on représente quatre-vingt-dix-sept pour cent des militants de l'APR frustration tey am na ñoo xam ne tey mënuñu wax parce que seen position la ñun position tax ñu jóg. d'accord léegi René euh, ñi nga xam ne ñoo mer APR frustré nga xamante ni tey gisatuñ seen bopp ci APR gisatuñ seen bopp ci ni président Macky Sall di doxee gisatuñ seen bopp ci vision bi nga xamante ni tey moom la leen président Macky Sall gëmloo woon tey boo ko doon xayma tey ci jeunes yooyu ak ci yenn ci ay cadres yi ndax biir APR. am na ay cadre même yow soo ko waxul am na ay cadre yu bari yu mer am na ay change yu mer mais jeunes yi ñi mer yow soo ko doon xayma tey ban pourcentage nga koy joxe. tey mun naa ne jeunes yu mer soo koy xool mun naa ne am na lu mel ni ay 65 pour cent jeunes yu mer si biir APR soo ko déggee daanaka mooy lépp. parce que jeune mooy fal président jeune tam parce que loolu dama ko wax tey dafa am lu ñuy wax alternance générationnelle mais alternance générationnelle qui devrait redonner de la vigueur et du sang neuf au parti et escamoter su ñu demee ba yenn instance yi moom am ay ndaw yu am ay diplôme am na benn exemple bu may jox am na benn xale bu jigéen du ma wax turam de xale bu jigéen bi dafa dëkk ànd président Macky Sall di liggéey ba dee papam dina ko seen kër parce que dafa tere politique des fois heure muy ñëw mais bu mu amul liggéey ay jeunes ñoo dem seeti Diagne Fada waxtaan ak moom nekk ah kii moom Macky la àndal ba sonn amul liggéey Diagne Fada moo mujjee jël xale moom muy liggéey donc loolu c'est dangereux koo xam ne APR APR yi ñu dégg na président Macky Sall mu ne APR amul amul lu ñuy cotiser mais c'est normal tey responsable à période mu jox yenn ndomba tànk ñoo ëpp xaalis président Macky Sall tey ñoom ñooy tabax ay cinq kër ay château tey ñoom seen xaalis boobu ñoo ëpp charge Macky Sall moo tax amuñu jotu pour defar parti bi tey Idrissa Seck benn côté dam ko dama ko fan bañ ko nommé dafa ressuscité Awa Gueye Kébé Idrissa ku ko xam day jàppale waa Thiès moo tax kenn ko gañee Thiès mais ñun dañuy bàyyi suñu ànd bëgg a jël topp àndu jàmbur loolu ñoo war a xoolaat suñu bopp am na loo xam ne nit ki moo koy fajal boppam maam Cheikh Ibrahima dafa ne Sëñ Tuubaa mu ne ko Mbàkke jox naa la lépp sauf sama ngor nit day am ngor ñun suñu suñu mbéjum karam ñoo koy fajal suñu moo tax ñooñu woo un ñooñu woo un appel aux jeunes sénégalais boo xam ne bokk différents partis politiques tey soo xoolee le combat de Barthélémy Dias le combat de Guy Marius Sagna mais c'est un parce que ils ont été constants mosoo dégg Barthélémy Dias mu wax loo xam ne mu wax loo xam ne détourné yoonam mosoo dégg mosoo dégg Guy Marius Sagna mu wax loo xam ne détourné yoonam muy Sonko ils ont été constants du début à la fin opposition dëkk dëkk day am dëkk day am une grande démocratie démocratie moo lan tey fii nga gisee Sénégal le numéro de le numéro un de l' opposition mu ñu ànd gouvernement bi mu bàyyi benn côté d' accord naa président day renforcer sa majorité mais tamit day doon un frein à la démocratie pour que le chef de l'opposition puisse accompagner le président tey dans les grandes démocraties soo demee mel ni Angleterre day am li ñu woowee shadow prime minister tey shadow prime minister mooy lan mooy chef opposition bi de temps en temps day liggéey ak président bi sur des questions diverses mais tey Sénégal lu ma gis nii mooy lan ñuy mooy ku ma am ndey ku ma amul ndey ñun duñu nangu loolu tey président Macky Sall dafa war xam ñun tey ñoo ko fal ba mu toll fii ñoo ko jàppale ba mu méttee ñun si seddaay bi maa ngi rappelé journée journée internationale de la trois personnes yu nekk si salle bi ba may dem dafa neige bépp na Sénégalais jëndu ma a dem ñu dugal suñu xaar suñu ay moyen suñu temps suñu énergie am na ñoo xam ne seen sëy tas na si tas na na président Macky Sall ñu nekk si diaspora bi. parce que soo amee sa jëkkër mu ne la bul dem nay dem am na jëkk am na góor yoo xam ne seen jabar bàyyi ne leen parce que ba ñuy faloo ba léegi. seen jabar ñoo ñoo ni tongoo ne leen yéen ba nga fale wala amoo si dara ba xuloo am si kër yi yi dem ñu bàyyi seen liggéey moo tax mu ne immigration clandestine bi man nekk dans chef de naa lu bari lu fa xew ba Sénégalais yi ñu leen Lampedusa en 2015 ba ñu demee aéroport ba gars yi ñibbisi ay 1000 2000 3000 Sénégalais ba mu duggee si avion man maa njëkk a wax yooyu yooyu yooyu man ne leen président Macky Sall moomu leen yàlla bi nekk Sénégal yàlla boobu moo nekk Libye puis seen réew la vous êtes parti à l'étranger vous avez pas échoué vous êtes rentré chez vous mais tey ani Sénégal yooyu ani Sénégal yu ñu jëlee Libye jëlee Centrafrique mais Sénégal yooyu ñoo delluwaat dee si ndox bi tey am na ñoo xam ne ils préfèrent se suicider silencieusement que de rester que de rester ici vivre vivre dans le déshonneur devant les leurs. kon kon da yaakaar ne ñi dem ci géej gi président Macky Sall am na ci part de responsabilité. no am na si part de responsabilité loolu loolu tey soo xoolee pandémie bi tey pandémie bi mais ñaata Sénégal dugal si pandémie ñaata moom mu am si pandémie bi tey immigration clandestine ñaata moor mu am tey soo koy natt soo koy soo koy natt taw taw taw moor immigration mu ëpp taw moor. Euh, Covid bi mais mille mille milliards yooyu muy def yooyu tey soo jëlee structure de la jeunesse au niveau du Sénégal seen budget doolu tollu loolu tey président dafa renforcer ces structures de la jeunesse jox leen xaalis lu mel ni lu mel ni ANPEJ mu jox ANPEJ ANPEJ lu mu bëgg a liggéey amul xaalis seen structure dafa amul dafa ndaw tey Prodac lu mu bëgg a liggéey Prodac soo xoolee Prodac Prodac day jël koo xam ne non diplômé koo xam ne am na diplôme def ay terres aménagées ay ay hectares. ni liggéey DER bi nag. bi tamit war nañu xoolaat DER bi tamit yenn yenn de critères yi man je le dis souvent parce que pourtant je le dis parce que DER tey su nekkee nga yemale yoo xam ne may saraan teel ay jeunes entrepreneur tout à l'heure ba may ñëw benn jeune entrepreneur dafa ma ne grand dégg naa yaa ngi si jox ma sa numéro ma ne ko lu tax mu ne jeune entrepreneur suñu demee ay booru caaro yi waa caaro yi jeunes yooyu lan mooy seen mbëbët si yan liggéey la gars yi yëngu ni xool liggéey leen jàppalee ah, d'accord jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume yow nga nekk responsable politique APR ci Dakar euh, Plateau nekk membre ci collectif des militants authentiques de l'APR maanaam muy collectif boobu nga xamante ni daal mën nañ leen a woowee sax ay rebelle ndax rébellion moo fa am ndax da ngeen am lu leen naqari ci parti bii di APR léegi sama question mooy seen xeex bii ngeen commencé est-ce que du ay xumbal la ngeen def ko fii ak weer gars yi woo leen neexal leen yedd leen ngeen tegaat ko ci suuf wala da ngeen a fës yéene dem jusqu'au bout. man de ku ma xam ak ñu ma àndal ñu ma àndal ay gor ni te naw naa leen moo tax mu ànd duggandoo ci combat bi man du ma duggal loo xam ne gëmuma ko parce que gisuma àdduna loo xam ne fees na sama bët. gisuma loo xam ne war naa jaay sama ngor c'est très important tey réew bi dañuy toll jamono boo xam ne restauration de valeurs républicaines daf fi néew doole dañuy toll jamono boo xam ne tey sàcc moo gën a sàcc moo gën a am njëriñ ko koo xam ne moo nekk nitu dëgg il faut ni delluwaat fii xam ne réewu Léopold Sédar Senghor la fii réewu Mamadou Diallo la réewu Ousmane Ousmane Blondin la ñooñu ay Vadiodou Ndiaye ay Sénégal xam ne ñu jaayeen seen bakken pour Sénégal toll fii su ñëwee ba jamono yi ba am boo xam ne loo aujourd'hui mun naa def si l'intelligence s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité tey au lieu nit di xalaat intelligence au mii xalaat tey te ñu gën a médiocre ñooy wax tey ñu toll dëkk boo xam ne des tonneaux vides font beaucoup de bruit man lu may wax rek ñun ñëw ni tey pour ni nax ni te gëwma nit mun na ko nax xale xale léegi xale est mun na mën nax xale xale soo ko mee xale soo ko nee naa naa la jox lii suba nee ko doom du mu la ko jox du dem ñun li ñuy xeex nii reconnaissance la au sein de l'APR kenn xeexul pour ay promotion kenn xeexul pour am dara parce que la nomination elle est divine c'est-à-dire que tout dépend des circonstances et tout dépend des méthodes ñun on n'est pas ñun on on reste des militants de l'APR on n'est pas dans un autre parti jéemuñu parce que sànq nga ko benn moo nee na ay rébellion du rébellion de c'est-à-dire que une révolution qui n'est pas accoupée dans ses idées et dans ses mœurs échoue la jàngat la diagnostic la sans de la situation tey soo ànd soo dafa grave dafa mel ni tey ñu nekk na am sa jabar dix ans de mariage na yeewu suba teel nay ndékki rek na gis si table table d'ingénieur bi rek papier de divorce te loolu le président Macky Sall def waa APR moo tax ñun tey ñooy jéem a faj buum boobu ñun tey ñooy jéem a delluwaat bu wax gars yi lan la mooy APR mooy alliance pour la république tey alliance pour la république dafa gën a néew doole mu ñuy toog tey alliés yi ñuy gën a servir te ñu doon saaga Macky Sall di ko ñoom ñoo nekk si kaw alors ñun tey suñu gox yi suñu gox ñu ni dugg si car rapide dugg si tata yi ñoom ni dugg si karkat yi dugg si lépp mais tamit politique dafa am ni ñooy reconnaissance loolu yàlla moo ne Dieu aime les reconnaissances Dieu Dieu aime les gens qui sont reconnaissants la reconnaissance elle est importante mais tey. mais Macky Sall ne le président Macky Sall il est animé d'une générosité suicidaire envers ses alliés mais par rapport aux gens de l'APR gisuma ko. gisu gisuma tey tey tey animé Alioune Badji Cissé koo xam ne jàmbaaloon si parti bi gisuma ko. tey ani ani Mbaye Ndiaye gisuma ko dégguma ko tey am na am na Moustapha Diakhaté dégguma ko tey am na ñoo xam ne dafa am loo xam ne tey suñu àndee nit ah Moustapha jaxate même su amee yenn idées yi c'est-à-dire que il a une opinion contraire c'est pas un rebelle c'est quelqu'un qui croit à ce parti c'est quelqu'un qui est dans la paire ñun ñëpp APR mu ngi gëm Macky Sall yi ñu gëm mais néanmoins man su ma àndee nit saa waay dafa am lu may taxawee. d'accord mais mais mais René euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay ndaw ñi. peut-être tey euh, mer ngeen wane ngeen seen mer président Macky Sall aussi yëg na ne mer ngeen mais tamit tey est-ce que amul ñeneen ñu nekk ci biir APR ay cadre ñoo xamante ni tey amee woon nañ ndomba tànk ba ñu dindi ndomba tànk yooyu si ñoom euh, ñu mer ba pare di ko wax ci suuf est-ce que gisoo ni ci sommet bi au sommet de l'APR est-ce que gisoo ne am na ñu fa mer ñoo xam ne mere nañ président Macky Sall gëmatuñu président Macky Sall tey bu ëllëg jotoon mën nañu ko wan ginnaaw waaye dañoo noppi instant bi ngir bañ mu sonal leen ci dara wala dara est-ce que jàpp ne loolu am na ci ci au niveau. ah man de lu may wax rek au ñu nekk si au niveau ñun tey amul benn responsable boo xam ne si biir parti bi sañ am na sañ-sañ yabu ni sax man ku ma xool kenn yabu ma du ma nangu mbindeef di ma yab di ma ne René defal ma lii defal ma lii te ñu ma àndal kenn du leen wax loolu loolu responsable yooyu. su ku mer sa affaire la am na ñoo xam ne. mais mais mais étant baa ma wax am na ñoo xam ne dañ jox ndomba tànk mais comme dem du dem jël ay opposant teg leen opposant jàppal leen lobby leen ba nekk ay directeur pour lan la parce que nekk directeur tey su ñëwee laaj la dara da nga koy jox facilement xam ni que ñun mun ni dara suñu mun ni laaj dara parce que ñoo bokk ñoo bokk engagement ñoo duggandoo ci parti bi parce que dans un parti le grade le plus élevé c'est le grade des militants nous sommes tous d'égale dignité tey soo jëlee un un René Pierre mais man lan la ma gars yi di reproché ni ne René il est trop direct mais yàlla moo bëgg kuy wax dëgg yàlla dégg la bugg nit man dama gëm loo xam ne ëllëg damay dugg si bàmmeel sept mètres percale kese la ma damay wéete suma borom tey la moo tax ma nekk politique président Macky Sall moo doon wax politique nit dafa nag mu def ay éthique moom moo ko wax nit man nag mu def ak ak loo xam ne engagement nit mën na ko def loolu mais suñu demee ba ba jamono yi tamit gis leen loo xam ne naka sudu noonu ñu tamit daf ni daf ni jaaxle ñu war a toog xolaat suñu bopp loolu moo tax tey on lance un appel tey c'est le soldat qui parle au président de la république il est temps mu xoolaat parti wam parce que am na ñu mer bare na de am na ay responsable yu mer bare na ñun ñun ñun duñu naa fekk duñu nekk si biir parti ba dara loo xam ne duñ ko wax mais am na ñoo xam ne tey ñooñu ñooñu nekk di ànd ak ñeneen di jéem a xool nañ koy def ñun tey balaa muy xam ñu ñooy kan ëllëg su nekk opposition ñu ñoo toog ak moom ànd ak moom ñu mu jël ñi ñenn ñu bare gëmuñu ko ah. tey ëllëg su ne ëllëg su nekk ëllëg démb démb démb am na noo xam ne musuñu ànd ak moom tey suñu ànd ak moom mooy amuñu pexe seen pexe lépp lan la c'est pour le contourner demain moom peut-être am na lam-laamee ne ne ay régime libéral plus de plus de cinquante ans man PDS laa bokk de. famille libérale famille PDS laa bokkoon de PDS laa bokk de laa bokkoon am problème boobu de mais man dama gëm la patrie importe plus que le parti man dama gëm la république dama gëm défense de la république man loolu laay nooyee loolu laay waxee loolu su mu amee noonu président dafa xoolaat boppam xoolaat parti bi parce que mënoo am ay malade l'APR est malade les militants sont malades moom mooy docteur bi dafa war a faj su ko fajee ñu indi benn garab tey le vaccin qu'il doit chercher c'est le vaccin de l'immigration léegi euh, René Pierre euh, mi lenn tamit dañ ko nemmeeku ci biir APR mooy dafa am ay ministres yoo xamante ni tey président Macky Sall ba muy doog di créer Euh, gis nañ ko si mel ni tey ay Benoît Samb ay Mor Ngom ay May Ndiaye euh, ay Thierno Alassane Sall ay Aminata Touré ay Moustapha Diakhaté ay Moustapha Cissé mais ñii ma la limal ñëpp ak ñeneen ci APR presque boo xoolee yoruñu benn ndomba tànk bu tax ñuy wax ñi yore ay ndomba tànk ci gouvernement Macky Sall bi ñu néew a néew ñoo ci gëmoon vision président Macky ñi mu àndaloon dañoo amut xarañteef pour doxal réew moo tax président Macky Sall dem jéggaani ji ko feneen wala lan moo xew. mais am politique dafa am lu ñuy woowee political appoint tey quand on gagne on prend ses hommes soo demee ba si biir nga gis dara da nga rectifier di modifier mais ñu ñu ñu nga tudd sànq ñëpp ay jàmbaar ne xoolal commune bi Benoît Sambou Benoît dafa liggéey ànd ak parti bi. pourquoi may wax Benoît Sambou parce que dama rappelé boo mu nekkee Angleterre man maa le seul responsable bu nekk Angleterre am comité en Angleterre mu comité Sénégal. sama boo frère ma ñëw ma jox ko un million ma ne ko soo demee Sénégal jox ko jox ko diw ak diw ni montel ma ma fay saal jamono yooyu montage comité fan la woon fi mbedd ñu koy defee dama fay saal da jamono yooyu defar ay t-shirt Benoît Sambou moom mu dem si mu dem si manifestation boobu am ministre ministre bi ministre bi mu tudd Néné Fatoumata Tall maa ngi koy nuyu au la sama mu ne musuma dem si montage comité mais René Pierre ko dama koy gis si internet bi il est engagé Moustapha Cissé mu ne ma du mun dem day yónni ngañ seen mooy PCA ISRA donc ñun duñuy duñuy ñun duñu ñuy gan ci parti bi tey ani ñooñu ay Benoît Sambou ay Mor Ngom tey Mor Ngom c'est un stratège Mor Ngom jàmbaara ci parti bi mais tey ani mu ci parti bi tey est-ce que moom am na tey est-ce que na lu ko neex tey mun naa la waatal ministre yu bari nay gis yi ànd ak Macky Sall tey lu muy doxee ni dara neexu leen ci mais mënuñu wax parce que des fois peut-être que am na seen position yu géré man tey man tey René Pierre am naa liggéey am naa fu muy liggéey tey fu ma nekk man tey liggéey boobu may nekk ni suy bëggee suba suba suba suba ni dàq ma ci boobu la moo parce que lu may gëm ni engagement la gëm parce que Nelson Mandela il a fait 27 ans en prison il est devenu l'un des plus grands présidents dans ce monde Angleterre dama gis sa statue devant le parlement de parlement anglais Abdoulaye Wade pendant dafa xeex président Macky Sall sénégalais yi ñoo ko jàppale ak ndaw yi ñoo ko jàppale su ko ndaw yi jàppale tamit dafa war a a jàppale ndaw yi am na ñu mu jàppale de mais des na d'accord mais mais René Pierre euh, dafa am loo xamante ni tamit daf ñoo xaw a jaaxal ci président Macky Sall peut-être yow mën na la bañ a jaaxal dañu gis ne élection présidentielle 2019 président Macky Sall dafa gagné ak 58 pour cent te ku gagné 58 pour cent pour man amuloo problème ndax majorité bi yëpp yow la ñu àndal te yow nee nga li tax nga am 58 pour cent danga def ay réalisation yu Sénégal yi teg seen bët kon déjà amoo benn problème ak euh, Sénégal yi institution yëpp moom ma ngi dox. kon lan moo waral président Macky ndax li mu jox Idrissa Seck mënoo ne tey Macky Sall amul ay nit yu ko mën a doxal tey li mu euh, li mu jox Omar Sarr wala li mu jox euh, keneen Macky Sall am na ay nitam beneen bi tamit ñii nga xamante ni tey dàq na leen peut-être yow mën nga ko gisee ne mais man mii di wax ak yow li ma gis mooy Macky Sall dàq na ñoo xamante ni peut-être tey euh, dañ leen tuumaal ne dañu am ay ambition mais lu ko fi jar ak 58 pour cent yi président Macky la am. ba muy yaatal gouvernement bi bay génne ay nitam di dugal ñeneen lan nga jàpp ne moo ko waral. saa waay dafa am waxu ay marché Sandaga fi la gars yi fi la gars yi itam dëmm ñu bare. ne ñii am ambition mun naa tur beneen tur Amadou Ba wax ni ko lu nekk dafa am ambition Amadou Ba xawma ko musu musu musuma dem si musuma dem si activité politique am mais fi la gars yi itam dëmm mais dernièrement dem na secrétaire exécutif du parti toog na fa remercier le président de la république wax moom tey tey Amadou Ba pourtant wax ni ko lu nekk ak ñeneen. tey am na ñu doon liggéey conseil économique social d' ailleurs yooyu tey jeunes yooyu jeunes yooyu tey tey leen fàtte leen dàq ñoom ñëpp tey président Macky Sall la njëkk a gañee xamuloo ko yaam la njëkk a gañee yaam la njëkk a la njëkk a gañee yaam soo demee dëkk bi wax yaam foofu la njëkk a gañee mooy premier bureau vote bu jën ñu ne Macky Sall gañe na élection 2012 boobu yaam la woon mais waa yaam tey am ni problème parce que am na ay montagne préfet ba mu ñëwee mu ne fii kenn laal mais tey ko bëgg a toj laal ko xam loolu du yoon am na loo xam ne président Macky Sall dafa maa yaakaar dafa mel ni comme président Abdou ba mu fi nekkee dama ne ba toog xamul sax patu mee xamul sax pour pour ndax may am na Sénégal euh, gouvernement euh, élargi bi. mais xam gouvernement élargi tamit dans en science politique c'est-à-dire que je vais dire une chose je vais le dire avec toute mon honnêteté en en science politique quand on gagne des fois soo amee premier mandat deuxième mandat soo ko amee des fois ngay bëgg a renforcer conforter sa majorité ngay def appel à des choix à des sénégalais selon moom xalaatee afal la bu dem dëkk bi. am na loo xam ne waxtaan nañu ko vous avez entendu il y a eu le dialogue et je peux dire que c'est il a toujours été un homme de dialogue loolu moom dafa wane. loolu moo tax à un moment donné mu ne moom day day avec d'autres sénégalais on l'interdit pas il peut gouverner avec d'autres sénégalais mais ñun notre plus grand problème que nous avons dans l'APR c'est la reconnaissance vis-à-vis de ses militants vis-à-vis de ses responsables mais amul cartographie. waaw mais euh, René Pierre euh, yow tey seen collectif euh, des militants authentiques de l'APR taxawal ngeen collectif bi est-ce que mën nga ma wax idée bi fan la fan la jugee ndax tey dégg naa tey ci weekend bi euh, am na si ñenn si yéen ñoo ngi dem euh, Sumone pour defa waxtaanee seeni stratégie mais ndax mën nga ma wax collectif bi idée bi fan la jóge ak seen euh, plan d'action yi nga xamante ni tey moom ngeen fas yéene teg ndax tamit gis naa yow wala ñi nga xamante ni ñoo ñoo rebelle wu ci seen page Facebook ñu ne ñoo ngi bëgg amal tamit marche jóge place de l'Obélisque dox ba RTS ndax mën nga ñu ñëwal ci loolu. mais xoolal soo gisee dans dans la vie les gens se rencontrent et se côtoient c'est comme des atomes crochus am na kenn ku tudd Thiadiaby bi a commencé à mener son combat man individuellement ku nekk individuellement mais ñu bokk jëm ñu bokk ñu bokk gis-gis ñooy bokk tôt ou tard en anglais nee na birds with the same feather flock together. te les oiseaux qui ont les mêmes, qui les mêmes ailes, les oiseaux qui ont, qui ont les mêmes ailes voleront toujours ensemble moo tax ba caaja bi amee idée boobu man am naa idée bi yàgg na man du ma dugal loo xam ne mukk xamuma ko su may dugg engagement la kenn mu ma dugal loo xam ne mais ni bokkandoo cest à di c'est-à-dire que c'est fait de manière instant instantanée et spontanée parce que ñoo bokk parti ni xamante mais déjà communication bi day yomb day liis ni rencontrer am suñu siège daf ay am ngeen siège suñu siège suñu siège mi ngi Sacré Cœur boru banque islamique tey jeune APR yëpp fu nekk gars yaa ngi woo pour ñëw tey su tey dama lay expliquer benn am na ñu ñuy mere sax ñu bëgg ñu dugalee si whatsapp bi tey tey à l'heure actuelle am na ñoo xam ne ñoo ngi somoon pour def benn séminaire man mënu ma dem parce que dama a ñëw fii am naa am na am naa yeneen am naa yeneen changement de après midi bi bi Dakar Plateau war naa rencontrer ay jeunes tey sax ñun d'ailleurs même Dakar Plateau man war naa organiser foofu benn manifestation bu mag pour woo waa pour woo waa gox ba parce que waa gox bi ñoom seen bopp ñoom ñoo ne du yoon lañ liggéey ba dee si Macky la te yow kenn kenn kenn jox la reconnaissance kenn yow fu nga toog ba léegi na toog parce que la doon loolu tey soo ma la nee kaay jàppale Macky Sall na xool ma man dara changement est-ce est-ce dina ñëw doo mus a ñëw tey nag xar suñu doog si ëtt ba lekk ba moo tax tey loolu moo tax mu ne ñun ak ndaw yooyu yëpp ñoo taxaw ne lii du am te lu ma gëm mooy la naa ah ñun président kenn kenn chantage ko de un président on le force pas un président on le conseille un président on lui donne des solutions tey ñuy bëgg ñun le président Macky Sall nu nga ko xamee man lu tax ma jàpp ko dafa toog mu ne këram ba mu gagné ba ñu ñëwee këram ay je pense le 27 avril 2012 mu ne je suis quelqu'un de très reconnaissant donnez-moi du temps ku nekk xam naa yaakaar ku nekk naa la jàppale. mais ban plan d'action ngeen teg. ñun suñu plan d'action suñu plan d'action c'est tellement simple déjà ñuy dañuy jéem wax parti bi wax jeunes yi wax bépp koo xam ne bokk si parce que dama man dama gëm personnellement cinquante pour cent moo fal Macky Sall mais huit pour cent kese APR la cinquante pour cent ay Sénégalais bokk ni APR mais am na ñu mer am na ñu ko mere. waaw mais mais mais René euh, Pierre euh, yow mais yéen tamit euh, yéen collectif bi ak yéen ñi nga xamante ni yéen a mer ci APR xam nga René yow ni nga xamee APR man noonu laa xamee ñu bari ñu nekk APR maanaam. APR moom yàpp naa ne Sénégal ñu bari xam nañ ne bari nañu ñu mer ci biir APR moo xam ay jeunes lañ moo xam ñoo xamante ni nag euh, ay mag lañ ci parti bi mais yéen est-ce que tamit defu leen benn erreur yéen euh, collectif bi que avant ngeen di def rébellion bii ngeen di def nii ci réseaux sociaux yi ak ci presse bi ngeen waxtaan ak sage parti yi parti bi euh, waxtaan ci ba président Macky Sall am lu mu leen wax wala ñu am lu ñu leen. proposé wala lu ñu leen expliqué pour ngeen mën a comprendre est-ce que démarche boobu def ngeen ko avant rébellion bii nga xamante ni tey moom ngeen commencé. mais damay wax benn affaire tey soo nekk si parti boo xam ne ah xamuloo koy waxal tey soo demee tey soo demee siège parti bi am soo demee siège bi am na administrateur parti Pape Mel Thiam mais doo gis kenn foofu koy waxal doo gis sa doléance tey su ma beneen audience su ma bindoon audience président Macky Sall laa la wax de président gis. ñu ngi koy xotti ñu ne René Pierre la xotti ko loolu lu ma wër si Maham Saleh ma saa yi ma saa yi Mahmoud Saleh damay dem Mahmoud Saleh moom ma gën a xam xam naa ko moo amee 13 ans LCT la nekk li commission des travailleurs may yóbbu añ sama nijaay Alioune foofu laa njëkk a dégg wax la dialecte du matérialisme moom Trotsky lay wax Trotsky lay réclamé Karl man j'ai la chance de visiter la tombe de Karl Marx à Londres à Cemetery xam naa ko bu baax récemment dem naa débat daf may envoyé message su may dem débat muy suivre mais dégg kenn si APR ma dem débat mu félicité ma opposant mooy moo may woo Doudou Wade tonton Doudou même René je te suis tu es bon tu es pertinent mais kañ la ma gars yi commencé di woo ba ma ba ñuy commencé def li suñuy gars yi commencé di woo mais loolu mooy lan. ah kon ñoo ngi leen di commencé woo nii. mais ñoo ngi commencé di woo. Mhm. waaw mais nag euh, René tey seen xeex bi euh, damay bañ euh, wala tamit mu bañ ngeen bëgg fee def comme xeexu étudiant rek ah sama mbokk étudiant yi nañ ma baal maanaam yéen ngeen commencé benn benn xeex <laughs> gars yi woo leen na leen René teg leen seen xeex bi ci suuf. may leen président Macky Sall temps dina wax ak yéen bu ko defee René lam jàppoon lépp teg ko ne eh, lam jàppoon moom tim eh, teg lépp bu ko defee dootu leen crédible. am saa waay loo wax ni sax dafa may reetaan loolu lu tax mu may man da ne étudiant man j'ai j'ai man je fais partie de des plus grands dirigeants du Sénégal en 97 on m'appelait Kabila au lycée Delafosse ñu jàpp ma tëj ma ñaari fan. jamono boobu Idrissa Cissé moo ma jàppoon léegi commissaire la moo nekk jamono boobu laa la wax de en 97 Idriss Seck mu ne mu yoon si Ablaye mu yoon si Ablaye Wade daf ñuy woon jox ni xaalis man ma bañ dem jël xaalis boobu am na ñu ko jël fii dëkk bi ñëpp a xamante loo mu muti def tôt ou tard da lay rattrapé man dama ne souvent mar naan moom ma gën mar naan taxul may naan peut-être su robinet ubbee damay ruus man tey du ñun tey on est ñun tey Idriss Seck wax na tey lu important mu ne si euh, il faut il faut il faut de la matière grise parce que dans la matière grise qu'on trouve des têtes grises si tête grise day am vécu expérience ñun tey ñu am vécu am expérience pourquoi on l'expérience tey expérience dafa doon loo xam ne benn école la mu am ay leçons mais leçons coûtent cher on en sort tous savants ou vainqueurs ñun tey am ni expérience boo xam ne ñoom tey ils pensent que am ni fu leen yàlla teg de am ni ay responsabilité de muy ëpp lu ñu dara loo xam ne ñun ci combat am ni attends attends am ni engagement te am na loo xam ne ñun tey du affaire u étudiant tegal fii ñu bàyyi noonu c'est-à-dire ñun lu ñuy gëm tey on n'exclut pas de rencontrer des autorités ku mel ni porte-parole parti bi suñu woy ñu toog moom ku mel ni directeur cabinet suñu woy ñu toog moom c'est pour vous savez pourquoi parce que il faut respecter l'APR ñun APR yi ñu bokk jëndu ni APR de suñu APR yi ñu bokk APR yu mer ba ëllëg ba keroog ñoom ni yaakaar que eh ni dàq leen ñu def loolu mais ñun ñu jën am man nee naa la sànq si njëlbeen bi dama démissionné du PDS en 2004 Abdoulaye moo fa xaalis Macky Sall ku démissionné Abdoulaye 2004 kooku est-ce que xaalis est-ce que xaalis tiital na ko. d'accord mais mais mais euh, mais René euh, ñu wax euh, leneen ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, ndawi APR yi mooy ndaw yi nga xamante ni tey ñu bari mer nañ mais parti politique parti politique dañu doon gis ne PDS. ak euh, même Abdou Diouf euh, P parti socialiste ay jamono mais PDS gisoon nañ euh, kuréel gi nga xam ne moo ëmboon étudiants yi ak élèves yi rôle bi ñu doon joué ci biir PDS gisoon nañ tamit UJTL rôle bi mu doon joué ci biir PDS ak cadre PDS mais biir APR dañu gis ne kuréel yi ëmb ndaw ñi amuñu benn taxawaay ci ci ci visibilité sax réalisation président Macky Sall lan nga jàpp ne moo ko waral. non du ma du ma d'accord loo de. parce que appel la boo tamit am na du question que ñun tamit ni am luy naqari rek que këpp suuf këpp suuf ceeb bi non du ma wax loolu. y a un jeune Moussa Sow qui est le coordonnateur des jeunes de l'APR avant y avait Thérèse Faye Thérèse Faye sama sœur la man maa njëkk a toog ma ne j'ai une candidate pour la Cogère c'est Thérèse Thérèse ñëw sama kër boobu muy soog a am doom man nag yaay sama candidate ma ne teg statut ni ak ah, li nay def te Moussa Sow mi a c'est on doit renforcer le comité cest à bu njëkk ba ay comité la woon. mais mais Moussa bu amul ay moyen nan lay xeexee. waaw foofu laay waxee foofu laay waxee. saa dama ne affaire bi du question approche jeune bi tey comité yooyu moo ramaat animation mooy lan commune bu nekk na gars yi def fa moyen boobu nga ne na trop soo gisee siège bi AP dama yaakaar hôtel la lu mu bindoo noonu hôtel laa ko yaakaar siège bu nga ne noonu yooyu boo xam ne mënu fa am dara mais ça fait un parti dafa war nekk un laboratoire d'analyse d'idées mais malheureusement c'est un parti boo xam ne tey parti boo lan la pouvoir boo xam lan la su dee mobilisation ni woo leen ne la kaa leen mobiliser ñu jox leen xaalis su dee distribution di jox la ceeb jox la diwlin jox la lii ne leen yóbbu leen seen gox yóbbu leen lii mais loolu parti au pouvoir. d'accord parti pouvoir day xalaat. mais mais René euh, yéen jeunes yi tamit yéen a ngi réclamer ka ne tey euh, da ngeen gis ne maanaam dañoo jël président Macky Sall dafa jël ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon ay adversaire am. jël leen taf leen ci wetam ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon démb ak moom bërki dem mu mu mu trahir leen même mën naa jël euh, ay propos Moustapha Diakhaté moom noonu la ko jàppee dafa gis ne président Macky woor ñi nga xamante ni tey ñoom la àndool démb ak bërki ak bërki démb mais yéen jeunes yi est-ce que tamit am ngeen benn expérience wala lu seen xam màcc René yéen jeunes yi nga xamante ni yéen a rébellé wu yéen ñëpp ñu ko wane ak ñu ko wanewut loo xamante ni tey bu ñu leen joxoon yenn poste yi dangeen ngeen ko mën a gérer ndax nag ci république lañ nekk. ah man de personnellement man je suis diplômé en relations internationales approfondies am na ñeneen am ñuy diplôme mais c' pas même pas question de diplôme. tey soo ngeen France au temps de au temps au temps de Pierre il était premier ministre Laurent Fabius était barre de diplôme yóbbu France à son inflation économique tey lu am solo. soo nekkee Youssou Ndour nekk na fi ministre ñeneen nekk na fi ministre te lu am solo emotional intelligence low attraction tey soo nekkee un manager cest à amal équipe bu baax no ànd ak moom wër leen gars yi wër la mais la mooy le problème la mooy le problème aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui c'est aujourd'hui les alliés de la tu vois aujourd'hui c'est aujourd'hui les alliés de l'APR ñoom ñoo gën a ñoom ñoom ñi gën a ñoom ñi ñoom ñoo gën a à la ñoom ñu gën à la bonne place tey imagine imagine imagine imagine aujourd'hui ok c'est la politique qui est comme ça la politique elle est ingrate te un bon matin un Cheikh Bakhoum se Yatara mooy Yatara mooy chef am. Yankoba Diattara mooy chef am te mooy ministre am man tey Barthélémy Dias dafa moo def Barthélémy Dias dafa ko mais Barthélémy Dias on l'a on l'avait renforcé ni renforcé ko Barthélémy ba mu ànd ak ñu nekk député man maa ko ñu ko contesté man amul droit nekk député parce qu'il était en prison. mais mais waa APR rek dañ leen di tuumaal ne da siis bëggu leen kenn dugal ko ci ci biir gouvernement bi René. sëñ bi sëñ bi dama wax benn affaire ah président Macky Sall si ay waxam la moom moo ne APR yi ñuy siis tey soo doon dugg soo doon dugg APR dugg benn kër ba leen jaar si buntu ba leen si buntu bi si fenêtre nay jaar man ku ma xam ne man je suis généreux dans dans l'effort ñun on a aucun problème à ce qui travaille avec bi nee naa man PDS laa jógee woon foofu laa foofu laa bokkoon mais lu am solo tey munoo bàyyi sa ay malade nee na yeneen faj malade jàmbur mais loolu mooy lan tey APR fa sonn nañu ñu fatigué tey tey yow soo amul taw nekkee soldat soldat war a dem guerre amoo arme amoo bal boo tiré mais noo xeexee ñun tey mu leen tiré. mais APR moom baadu naax saay kon. mais mais tey APR tur bi moo fi nekk rek tur bi moo fu nekk rek APR mu APR ni ñu ko créé si ay frustration ñu ko créé ay mer ñu ñu mer ñoo ànd mais ñu mer ba ñu àndee ba léegi jàppale Macky Sall mu falu léegi mu ne a ah, xaaral ma demaat sama fu ma bokkoon ëllëg fu ma bokkoon démb ñu mu ànd leen démb mu dem indi leen leen teg leen suñu kanam mais ñoom suñu ñëwee tamit dañu war a xam ñoom fi ñuy fekk mais d' accord naa de nga jël indi mais soo jël indi tamit ñu nga ñu nga bàyyi fii jàppale leen. d' mais yow euh, euh, René est ce que mooy yi may jël mën nga ko utiliser maanaam biir APR euh, ndax d' accord nga ne biir trahison am na ci biir APR manque de reconnaissance jàpp nga ne am na ci biir APR manque de considération jàpp nga ne am na ci biir APR pëccoxooti bi ndax jàpp nga ne am na ci biir APR. man dama ne dama lay wax de sama wax sama wax du neex de sama wax du neex laa la wax dama ne président Macky Sall dafa trahir ñu bari si biir APR. man daf ma trahir dafa trahir sa jeunesse dafa trahir la jeunesse sénégalaise dafa trahir sa ay ministre tey propos bon Abdoulaye Dione day wax sama day conforter sama wax moom wax ci seen bi c'était très tôt dama ne Idrissa sec mooy loo xam ne dafa def gis discuter ak kenn tey ministre APR boo laaj est-ce que yëg na day ne tiimul xamul d'accord naa c'est le président moom muy ñemee constitution sénégalaise bi soo xoolee le pouvoir qui est conféré qui est conféré au président est mais am loo xam ne tey sooy def da ngay loolu mooy état da ngay waxtaan si ay nit ñi ñoo ànd ak di bëccëg nekk la si naaj bi te ànd ak di xeex ñun sawaay campagne bi xoolal président moo ne campagne bi moo ne lii c'est le mandat de la jeunesse mais ñun suñu ñëwee tey d'accord naa de su nekkee un parti qui est un parti qui est bien organisé lii di waaj am mais kuréel bu nekk muy commune bu nekk mais jëm leen gisaw ñoom waxtaan ak ñoom ne informe leen ngay xam tey un communiqué di conseil des ministres day am. on n'arrive même pas à l'exploiter tey dara day xew tey dama gis keroog ni benn euh, conférence conférence de presse du gouvernement si ëllëg sa ma gis ne bi ne les trente les trente guerriers du président de la république le président a chargé trente guerriers ëllëg sa tamit ma gis ma ma gis tamit ma meññaa mu ne trente guerriers yi amul moom bokku ci liste boobu te trop mi ngi bi donc loolu ça veut dire problème ça veut dire y problème ça veut dire a problème dafa am tâtonnement mais loolu c'est pas normal c'est pas sérieux c'est pas digne d'un parti au pouvoir il faut qu'on change il faut qu'on revoie nos méthodes c'est important tey mënuñ toog fii loo xam ne di politique gars yi di jéem a def nii c'est-à-dire que il faut ñu am lecture soit on veut aller de l'avant soit yi bëgg a yóbbu dëkk bi feneen te les sénégalais sont fatigués les gens ont besoin que le président moom ñu fal que mu jël ay directives que mais attends président dafa war di àtte ay xeex moom du àtte xeex jaajëf euh, René Pierre euh, yow mi yow nga nekk responsable politique APR ci Dakar Plateau nga nekk membre ci collectif des militants authentiques de l'APR euh, léegi René yéen collectif bi est-ce que amul benn responsable politique gu APR bu ragal président Macky Sall nekk ci seen ginnaaw di leen ñaax di leen dalloo ci kaw président Macky Sall. bi xam yoo yooyu sax. soo ko soo ko waxee sax sànq tamit may waxtaan même soo ma déggee sax may wax war na xam man amul benn mbindeef si kaw suuf boo xam ne day ñëw si man personnellement wala ñooñu ma àndal mun ne leen jàppal leen ma ñun li ahli duñ ko def la ma la duñ ko def ñoom bay nekk seen station yi est-ce que ñooñu est-ce que kooku ma jox ma poste est-ce que na ma jàppale na ma est-ce que woo ma jàppale kële noo non ñun amul kenn koo xam ne mën ñu wax lu ñuy def am na ñuy wax sax ah soo leen defee lii ça va ça va servir de cause à d'autres personnes non ñu on ñu xoolal y' a personne qui nous manipule ñun ñoo toog xalaat man nu ma toogee sama bopp di xalaat keneen toog xalaat keneen toog xalaat loolu la affaire bi demee te du ñu rek fii xoolal marche boobu dina am on va organiser une marche de mille personnes laa la wax su ma la waxee gëm ma semaine prochaine on va faire des tournées waa Touba ñoo ngi woo pour ñu ñëw ñeneen ñoo ngi woo te gars yi gars te tey gars yi tey gars yi séminaire dem dem dans les quartiers waxtaan ak ñëw mais c'est écoute Ayatollah Khomeini ba muy def la plus grande révolution islamique en 1979 il l'avait fait avec des jeunes dafa ne Shah d'Iran ces jeunes là ils seront libres ou bien ils deviendront des martyrs damay wax le président Macky Sall ñun nous serons libres ou nous deviendrons des martyrs dans l'APR nous serons libres comment mooy des renforcer APR mooy commune bu nekk day def lu ñuy woowee source analysis strength and weakness of the product commune chaque commune bu nekk des renforcer les gens qui sont là-bas on va aller vers mais tey ñun amuñu amuñu benn arme bu ñu demee si local yi. d'accord mais nii ngeen di continuer nii bu dee euh, seen problème solution amul élection locale yi nu ngeen def. sëñ bi waaw ah, dafa am loo xam ne tamit sooy dem sooy dem xeex doo joxe doo joxe tamit sa yenn sa yenn sa yenn technique yi. Mmh, d'accord c'est-à-dire que. il faut jamais sous-estimer l'adversaire loolu c'est loolu c'est dans c'est de la guerre de Sun Tzu. d'accord <laughs> ah. euh, René Pierre président Macky Sall bi mu defee gouvernement bi Seydou Gueye euh, ak Abdoulaye Coulibaly di lire liste bi. nga gis ne euh, Amadou Ba nekkatul ministre des affaires étrangères Aly Ngouille Ndiaye nekkatul ministre de l'intérieur euh, Omar Youm nekkatul ministre euh, des transports terrestres génne nañ Mohamed Boun Abdallah Dionne génne nañ Makhtar Cissé génne nañ de Touré yow René Pierre yow mi ban lecture nga def jour boobu. non très honnêtement j'ai parce que yaakaaruma woon ku mel ni ministre de l'intérieur déjà ministre de l'intérieur mu naa ku mel ministre de l'intérieur ak jàmbaarate bi ak élection yi nga ko tenir élection bu rafet bu jaar yoon dindi ko mais am na loo xam ne tamit ak ñeneen ñeneen ah, mais am na loo xam ne tamit président moom mooy xam lu tax muy def loolu moom mooy tànn ay nit moom la yàlla moom la yàlla jag na loolu moom moo am euh, benn pouvoir boo xam ne constitution moo ko conféré tey su ko defee. du duñu discuter si choix yooyu de man loolu laa wax ba tey duñu discuter si choix yooyu dem après ça bu may def rek moom moo xam lu tax mu def ko mais tam beneen côté def ñu xaw a tiital ñun suñu nekkee ay ndaw nekk APR di si ay mag ay kandam ama yenn poste occupé ko ni xëy un ba matin ni dindi leen te ñun xam ne quelles sont les raisons bu jeex raison moom moo ko xam ñun suñu xolaat suñuy gis-gis day xaw a suñu gis-gis dina xaw a teye si mbir bi na gis tamit ñeneen ñëw ñëw ajouté ah ñun ok peut-être on peut-être je sais pas on veut aller vers un grand parti te man gëm naa sax soo moytuwul Karim Wade day ñëw Karim Wade ñëw àndal Macky Sall. ah bon te Idrissa Seck su ñuy ànd ak Macky Sall parce que Macky Sall dama yàgg président Macky Sall dama yàgg dégg muy wax ba nekkee opposant man le jour le jour où je président de la République Karim Wade mun na doon ministre mu gouvernement. te man ma gisee affaire bi nii xam nga wax régime régime libéral de 50 ans Karim Wade day ñëw 2023. ah bon Aminata Touré ak comportement bi mu amee vis-à-vis ak président Macky Sall lan moo ci sa xalaat. xam man tey su ma ñëwee fii tey moo wax lu bon si am na Touré man dama doon am na Touré xam naa ko bu baax sama xarit la boo mu nekkee premier ministre elle a tout fait pour que mu am liggéey toog naa bureau premier ministre mu woo ancien directeur de l'AS de agence police de proximité docteur Pape Khalinia mu maître Pape Khalinia mu ne que dama bëgg na xool René Pierre c' est un jeune très engagé c' est un jeune du président dafa ne c' un jeune du président de am na compétence am na lépp ma dem rencontré yàlla tudd dafa ko. une fois may dem aéroport di jëli benn Sénégal bu tudd Matar gaañu na yàlla yàlla yóbbu àjjana il avait fait beaucoup de choses dons d'humanitaire pour le Sénégal mu nekk en période fatidique war a gaañu ma jëli ko aéroport ma gis ko à la copée de l' avion mun ma René félicitation boobu ñoom premier dégg naa yaa appréciation may def moom moo ko xam nekk na fi gis naa tamit nekk na consultant si parti bi ñu jël ko mu ànd ak président Macky Sall mu def liggéey boo xam ne bu bu bu boo xam ne ñëpp ñëpp rafetu ko président Macky Sall tamit jox na ko tamit ndomba tànk yoo xam ne mu la jox doomu aadama yëpp def na ko premier ministre daf na ko euh, envoyé spécial daf na ko tamit daf na ko tamit président conseil social après diggante bi man mun moo wax carrément la moo xew seen diggante ba mu demeet ko mënu ma wax léegi la mooy la moo tax moom tamit ba mu defee déclaration bi ñu bari dañu koy ñaawlu que moom ba léegi tudd président Macky Sall man loolu mënu si si commenté parce que loo ne xamuma ko tiimuma ko fekkuma ko mënu si commenté loo mun commenté rek mooy sama rapport ba doomu aadama yi am na rapport bu baax moom même rapport bu mu amee moom rapport boobu la ak le ministre le ministre Oumar Youm ministre Oumar Youm am na yéene am na yéene bu baax si man sama xarit la am na yéene bu baax si man waxtaan na am na lu ma bëggoon jox yàlla def na nekkatu fii nekkul nekku yàlla def na il n'a pas été reconduit mais am na lu ma bëggoon jox mais est-ce que loolu tax na tey man may mer non non damay gëm yàlla la ma gën ndogal yàlla la parce que nomination est divine tey Aliou Ndiaye am naa def moo rapport wax moom Amadou Ba xamuma ko miinuma ko mais élection de élection 2017 législative dëgg laay wax toog naa Pape Amadou Sarr ku yore DER bi woo ma ne ma René dama la soxla ñëwal bureau ma ne pour lan ma ne wala dama la jàppale ba ma ñëwee ma ne ko yaay bras droit joxuma sax ma ne ko yaay bras Ba ma liggéey mu def dara baaxu si su nekk day gagné day nax boppam waa ji dégguma dégguma dégguma dégguma mu ne saa yow daal yow daal nitu dëgg na mu jox ma sama soutien ma def acte politique je l'ai invité à l'acte politique tey Amadou Sarr mosuma dem si moom nekk utal ma ay utal ma utal ma ay ay soutien pour pour waa DER pourtant def naa acte politique il mu gis sama mbooloo gi sama base mais dafa dafa ma loolu parce que la yooyu yëpp yëpp ma xëy wax tey du ma du ma neex naa fekk de dafa am ay dafa am nit yoo xam ne dañuy ànd ak nit nit def si ñoom lu bare. ni xëy suba ni dàq kooku parce que loolu wax souvent ma ne que fii on va vous lécher après on vous linge et après on vous lâche. d'accord d'accord léegi euh, ñu jeexal ak yow Dakar Plateau très sincèrement ndax Dakar Plateau nag René euh, am nga fa doole. est-ce que foofu tey am nga fa doole am nga fa ay militants. yoo xamante ni tey boo leen woon tey si samedi ji ñu génn. sëñ bi soo defoon micro trottoir tey Dakar Plateau dama lay dama lay ñaan bés moo tax des je demande au journal de faire des micro trottoirs par rapport à des donc c'est important il faut le mettre dans vos bu bu organisez des dem goxu mbiri responsable yëpp nañ demander la population j'en suis sûr et certain si vous allez à Dakar Plateau vous demandez René Pierre. il est immoral de parler de mais dans des cas exceptionnels je suis soo demoon Dakar Plateau na am na fa mbooloo sama yaay def na fa lu baax sama ay maam lu baax ñu fa def askan li bu laa dëkk sama sama sama ay maam ñoo fa nekkan maire Jojo Gomis Wagan Diouf sama maam tudd Amadou Assane Ndoye ma dëkk rue Amadou Assane Ndoye donc loolu rek ça veut tout dire ma dëkk ma dëkku si askan boo xam ne foofu ñu lay jàppale tey jeune dakaar Plateau ñu bare ñu ngi toog di ma ne René Ngor taxaw ma ne eh, bés mën a taxee yàlla moo koy wax. mais mais est que mën nga faa am doole ci kanamu Aliou Ndoye euh, il paraît aussi que ne yaa xam foofu lay militer. xam soo xoolee euh, wàllu Aliou Ndoye maire Aliou Ndoye man je peux dire que c'est un bon allié du président de la République ça je le dis très honnêtement et très franchement il fait un travail excellent pour le président de la République et keroog j'ai été euh, vraiment soutenu par son discours à l'émission Jakaarlo ba mu wootee on yaa xam mbay mi wax sama xarit la sama lépp la on se parle mais gën wax mais yaa xam yaa xam doon na def politique mais léegi on le voit mais léegi on le voit plus sur le terrain mais am na yeneen femme ku mel ni Ndeye Thiam président des femmes sama yaay elle a été nommée récemment chargée de mission au chargée ministère de la femme te au passage maa ngi gërëm di en di remercier la ministre Ndeye Sali Ndeye Salimata Dieng lu mu nommé sama maire c'est pas parce que doxal na parce que les gens que. sama yaay ñu ko parce que man la moon non non sama yaay elle est engagée. comme ni nga engagé elle met son argent dans le pain elle a été agressée sama sama yaay ñu ko agressé dafa ànd ak ministre bi dem ba Pekes au retour elle a été agressée weeru koor la woon parce que elle devait rentrer. d'accord donc pour dire euh, que ñun plateau. Mhm. on travaille sur coalition Benno Bokk Yaakaar le moment venu on va discuter en interne xool lan mooy le meilleur profil pour Dakar Plateau man tey damay wax man am naa ambition Dakar Plateau c' est pas de la prétention un jour bëgg naa doon maire Dakar Plateau mais du ma tëb ne man la mais sàcc nañ la yomb na wante foo ko tëgg mooy jafe man fu ma neex laa dagoo bi Dakar Plateau. d'accord euh, lan ngay tàggoo René Pierre euh, Yahoume. man lu may tàggoo mooy tey ah tey damay jox un message adressé au président de la République cest à que tey dama constater un isolement du frère du frère du président qui est devenu une à la bonne marche du parti et du pays en général tey damay demande au président de la république ma ne que l'alternance générationnelle boo xam ne ki devrait redonner de la vigueur et du sang neuf au parti est escamoté tey dama ne le président de la république tey dafa am une préoccupation genre la préoccupation genre tey tey gisoo dëkk bi lu fa xew ay borom ñaari tour yi ay affaires yu fi xew si dëkk bi si booru grande mosquée loolu c'est dangereux dans un pays comme le Sénégal c'est-à-dire que il attention dans fi dëkku Alaaji Maalik Si la fi dëkku Serigne Touba la fi dëkku cardinal Thiandoum la fi dëkku Baye Niass la c'est-à-dire que la préoccupation genre et la lancinante question de la parité et complètement reléguée aux oubliettes tey président mag Sall ma lay ñaan man sa soldat ak ñëpp ñoo àndal ñun jeunes yi ak jeunes sénégal ñoo lay ñaan gënal jàppale ndaw yi sa parti xamoo lu fa xew de mais am na jàngoro bon fa dem tey ñëpp feebar sa parti xam nga corona tey AP dafa te vaccin bi président Macky Sall moo ko yore war na régler vaccin immigration war na régler vaccin wu APR e parce que ñun pour ñu mun jàppale suñu suñu gox président daf ñu war a jàppale parce que nit soo ànd ak moom nga koy jàppale. mu mun jàppale ay nitam. loolu laa amuloo di la di tamit di la di la remercier parce que ba nga ma wooyee mu ñëw vraiment gis naa sa taxawaay. gis naa tamit yàlla ni euh, defe naa fii Magic Diop moo ko moo ko moom tamit euh, gis ni gis nañu ko tamit mu ngi béy waaram ci réew bi à chaque fois muy jël ay jeunes bien que des fois du ma bokk moom ay idée ça je le dis très honnêtement ah du ma wax ay idée mais dama gis moom day jàppale ay jeunes ay entrepreneur mm-hmm. benn booy moo ma ne da gis mu voie am rek mu ne ko kaa ma jël la di ko jàppale même dégg naa période corona bi doon na leen jàppale di leen fay donc vraiment ñoo ngi koy encouragé gis liggéey muy def ni xam ne dans ce pays il faut qu'on croit à l'expertise local il faut qu'on croit à l'intelligence important pays bi man damay wax ne there is no place better than home foo muti dem mun na fa jouer Angleterre première division en France Sénégal nu mu jouer première division fii laay nekk un exemple moo jox i bonne image dans les jeunes de mon quartier ni ne René mooy suñu référence man dama gëm référence nit day am valeur tey loolu c'est très important ñu mel ne Ousmane Blondin Diop ñooñu ay gor ni woon ni ni dee tey ñooñu ñu war a am ay Sénégalais yu mel ni comme ñoom ñu xam ne gor gor c'est important xaalis waru tax nit jaay ngorom. jërëjëf euh, René Pierre euh, Yahoume mu nekk responsable politique APR euh, fi nga xam ne mooy Dakar Plateau moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen naandoon si ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu technique bi kon mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah ci beneen jataay.